ñu ngi am mbégte dalal Abdoulaye Wilane porte-parole parti socialiste euh, mu nag euh, tey war a waxtaanee notamment euh, ñaar fukk at gannaaw bi président le Léopold Sédar Senghor làkko at mu jot ngeen di ko màggal Abdoulaye Wilane ñu ngi lay nuyu dalal la jàmm ci plateau matinal Rewmi FM. jërëjëf mbégte mi fii la ëppee parce que. d'abord li ñuy li ñuy li ñuy waxtaanee ki ñuy waxtaanee ak fi ñu koy waxtaanee ndax dëgg-dëgg euh, yàlla yow sa wàllu bopp jëlale naa la mais euh, réew mi FM ak réew mi groupe bi yëpp euh, seen liggéey seen wàll ci tasaare xibaar mais yee gindi sénégalais yi mais également sóobu seen loxo ci li jëmale Sénégal kanam lu ñu naw lu ñu fonk la donc dajeeg ñun ci waxtaan fii may wax ci turu parti socialiste nga xam ne ayla la yéwén ki nga xam ne ni mooy suñu euh, maam ji ko sos euh, ñun ñu ay ndonoom euh, waxuma rek li bor bi ñu ko yoreel en tant que parti bi ak jàngat bi ñu war a jàngat ak li ñu war a jëriñoo xalaatam ak jaar-jaaram ak ak posé yëpp mais Sénégal yëpp ñoo ko war a fàttaliku àdduna bi wërngal këpp parce que moom euh, waxuma la ni mu fexee ba Sénégal am indépendance waaye itam fi mu yeggale turu Sénégal ba nga xam ne tey ci wàllu diplomatie rek turu mi rek sax am na lu muy jëral jural Sénégal ak lu mu koy indil euh, moo tax kooku bu génnee àdduna ñaar fukki at mu mel ni ki tey la gën a xew ndax àdduna bi yëpp liy xew yëpp ci wàllu yorinu réew ci wàllu mbay ci wàllu diplomatie ci wàllu paj ci wàllu lépp lu xew rek même ba ci ay abiru internet ak yooyu noonu diggante réew yi da ngay xam ne Senghor daal ku yàlla mayoon la euh, ba tax na li mu def ak li li mu xel li ci xelam mi adduna bi di ko ñëw tax na be mun nañu wax ne moom du faatu mukk d'ailleurs tubaab de day naan ñi ñu wax ne dañoo faatu wuñ dañoo làqu rek euh, mooy les morts na sont pas euh, te loolu boo ko waxee nit ñi war nañ ko mën a gëm ñi gëm diine comme ñi gëmul diine ndax boo seetloo yonent yàlla Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mosul toog ci bangu école war a daara di jàng waaye tey bën na gë ni xelam xalaatam jaar-jaaram jikkoom ak téere bi mu indi te muy waxi yàlla mu ngi jëriñ jullit ñi ci àdduna bi yëpp noonu lan goobaaw na waxee ci Isa ibnu Mariam alayhi salaam ak yeneen yeneen yi nga xam ne ni yàllaa leen yebal ak borom xam-xam yi wala boog même ñi nga xam ne ñoo def lu bon ñi créé bombe atomique ñi créé guerre mondiale ñi yooyu ñëpp àdduna sàcc yu mag yi sax euh, ak ñi def ko tu ñaaw te fi sax àdduna yi jàng ci ñoom waaye li am solo mooy Senghor daal ñun 20 décembre bu jot dinañu fàttaliku ñaanal ko te ci lañ dëkk sax même bu du loolu waaye tam bu anniversaire bi jotee te saa su ne ci li ñuy yëngatu buñ toogee di politique bala ñuy xalaat dañ koy fàttaliku maa ngi fàttaliku sax wuyu mbay doon de mbay mi daan wax naan ci sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu naan bu leen di fàtte di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon donc ñun tam Senghor loolu moo tax ñaar fukki at yi ñu ñu koy màggal mhm. alors PS ci wàllu politique tey naka lay euh, sukkandiku ci xalaat ak jëfinu Senghor. Oh, xam nga loo koo xam ne dañu wax ne lu yëngu lu ne la ko yëngal ak ëpp doole mm. koo xam ne ni tey li ngay def ci wàllu politique yëpp su dul woon moom waaw xam nga tey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu dul woon ak moom l'islam du am bu dul woon ak moom adduna du am mais ñun tam ci parti socialiste bu dul woon ak Senghor mi nga xam ne nii dafa jàng ñëw Lamine Gueye dugal ko ci politique ñuy wuute gis-gis mu taaxale ko moom bind leetar gi mole dem yoonam après dajawaat créer parti bi mu créer parti bi demaat na ba jubawaat ak Lamine Gueye ñu ànd yor réew mi bët dee moo leen le Lamine Gueye jiitu mu des fii après et cetera et moomu nga xam ne ni tey ci wàllu intégration union euh, africaine moo doon théoriser l' intégration par cercle concentrique mu ne boo bëgg a dajale Afrique bi mu nekk ba da ngay am jikkoy diw. diw fa mu toq fa la toq waaye day jékki-jékki law yaatu. ah am fu mu euh, laree. donc ñun ci yooyu la ñuy jàng ensuite saa yu ñuy toogee tudd parti bi rek. mbaa ñu gis maison du parti mbaa ñuy dem ci àll bi ñu def tournée ñu ne la ca jamono yi 1948 1945 Senghor ñëwoon na soloon na kakki bii la soloon képp bii la soloon euh, felt bii la soloon ci ci garab gi la taxawoon dañ ko dagaloon fii nii benn benn benn tóor mu taxaw ci bala ni ñu ko daggaloon garab mu yéeg ci taxaw nit ñi gis ko te booba temps oto yi ak moyen de communication yi mel léegi amuloon donc yooyu yëpp dañ ñun daal Senghor du ñu ko du duñ jàpp ne euh, héritage am lu ñuy jiix la parce que man mii di wax yow tey maa ngi nii ci 20 décembre bi jege ko Abuja nga xam ne nii moom mooy capital bi yore siège parlement CEDEAO ak union commission Afrique ak euh, commission CEDEAO fala joye ko ñu ngi waxtaanee euh, intégration fii ki weer ci kanam président de la République bu Sénégal ci dina dina jaar ci jaar tànk Senghor tànk Abdou Diouf tànk Abdoulaye Wade jiite Union africaine ñu ak euh, yeneen ak yeneen jamono bii àdduna bi nga dégg ñuy wax choc des civilisations ñeneen ñi di wax Euh, euh, euh, dialogue des civilisations Senghor daf ci am solo boo xoolee fan yi ci ginnaaw président bu États-Unis président Joe Biden mu ngi doon daje ak yenn téeméeri réew ci àdduna bi Sénégal bokk ci loolu dialogue boobu doon am le multilatéralisme nga dem ba ay fan ci ginnaaw fii Sénégal Chine dajaloon na fi réewu Afrique yu bëri di waxtaan ak ñoom ci ci kilifteef ci leadership bu président Macky Sall tey jii may waxe yow président Macky Sall ma nga Turquie di waxtaan entre Turquie ak Afrique te ku ne xam ne suñu rôle waxuma la sax président Abdou Diouf yàlla na fi yàgg te wér mi nga xam ne moo njàkkaraam wuutu Senghor njàkk ko nekk donoom nekk taawam mi ngi joué na ko ci francophonie suñu diggante gi arab yi nga xam ne nii euh, war nañu liggéey bu baax ci biir OCI te loolu terewuloon Senghor nekkoon tam ku doon dundal le dialogue islamo-chrétien donc Senghor daal ndonoom li daanaka la Ousmane Tanor Dieng rahmatullahi alayhi waxoon bi mu génn àdduna daf ne te Senghor tey lañu wax ne faatu na génn àdduna mais ne mel na ni tey la Senghor doonu judd parce que bind na bàyyi fi xalaat na siiwal ko jëf na bàyyi fi te lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ci réew mi rek amul lu domaine boo xam ne rek boo ci yëngutoo loo demee ci nga ne kay Senghor jaajëf Senghor kon nag ñun am nañ sas wu rëy rëy rëy loolu moo tax saa su ne dañuy dañuy dañuy dañuy góorgóorlu pour fexe ba Euh, bu ëllëgee bu ñu ko fekk jee ca bés penc euh, bu bu mu ñu xool daal ne accam yéen ndax bu ñëwaatoon tey dina am lu PS di defar ci tooginam wala ay jëfam a ah, jàpp naa ne ci su fekkente ne ni ñuy ni ni parti bi dundee bi mu génnee àdduna ba nëgg ne ci biir international socialiste ci biir inter africain socialiste ak ni mu dundee ci biir àdduna bi ak euh, ni ñu doxalee ba tey ñu nekk tey sax ci coalition boo xam ne nii gannaaw bu ñu defee fukkat ak juróom ñaar ñaar fukkat ak Senghor def ak fukkat ak ñaar fukk ak Abdou Diouf nekk fukkat ak ñaar ci jàkkaarloog Ablaye Wade taaluñu réew mi yàquñu ko te ñu ngi doon dimbali Sénégal ak sénégalais yi ñu avancé ci démocratie nekk tey ànd ak Macky Sall yor réew mi lu daanaka fukki at topp euh, bu Senghor ñëwoon tey jàpp naa ne du ñu du ñu jéppi du ñu xeeb ndax politique moom li am solo mooy méngoog jamono maanaam ànd ak jamono li ñu tubaab di wax adaptation donc ñun li ñu nekk mooy xam xam li mën a am ñi ñi def ko xam li nga xam ne ni moo moo ëpp njëriñ te jàpp naa ne Sénégal moo ñu itteel ba nga xam ne ku ñu àndal ba def la président sax di àndal di liggéey dara taxul de du sa taar du sa xam-xam du sa xalaat dañu jiital ñun intére réew mi jàpp ni ñun liggéeyal suñu Sénégal daf ñoo war ci bu ñu nekkee ci nguur gi daf ñoo war bu ñu nekkee ci opposition bi te tey tey tey nekkuñu jiitewuñu réew mi mais dëgg-dëgg yàlla ci li ñuy àddu lépp ci luñ ñu boole lépp lu ñu gëstu euh, euh, laaj suñu xalaat yëpp ah jàpp naa ne euh, la lay génn lu ñoŋ la bu mun ñu boolewul nag ah, loolu ñun xam nañ ne boolewul ñu waaye tey am nañu ay nit ñu nekk ci gouvernement bi am nañu ay député à l'Assemblée nationale am nañu ay membre du conseil collectivité territoriale conseil économique social am nañu ay nit ñoo xam ne ay maire lañu man mii di wax yow laa fukki at ñaar fi mu toll nii li ma bëgg ñaan yàlla mooy nekk président conseil départemental bu Kaffrine te loolu loolu loolu loolu tuutiwul te ñun ñëpp tam ñu ngi ci donc euh, moo tax Aminata Mbengue Ndiaye faw ñu gërëm ko ci ni mu taxawoo parti bi te it nag premier journal bi ñu njëkk a génne ci parti bi ci parti nataal ba ci nekkoon jigéen la woon jigéen la woon soo sa fàttali ko itam am ay ay fat ay ay fanweeri at ñeent fukki at ci gannaaw kii bi gënoon a riche rëy Sénégal ci xaalis billet junni bi euh, Rose Basse moo ci nekkoon photom mm-hmm. ah, donc ak yeneen yeneen donc euh, tey suñu toogee ba jigéen ji jiite parti bi nekk parti boo xam ne nii quand euh, ci Afrique rôle am am na solo trop mm-hmm. duñu ñu def loolu sant la ne du bu sangoon ñëwaatoon duñ duñ defaraat suñu toogaay xanaa au moins daf ñuy wax ne leen ah gàcce ngalaama yéen. yéen a ngi ci yoon bi alors ñaar fukkeelu anniversaire bi nag dañ waxoon ni ca la ñuy jël li des ci Senghor ak njabootam Philippe ak euh, Colette yóbbu leen Joal waaye ca mujjantal ga dégg nañu ne loola teg nañ ko ci suuf lan moo ci ne. waaw li am mooy. Euh, euh, xalaat boobu jeexagul. yeesul te du jeexagul waxtaan boobu xalaat boobu. Euh, xalaat boobu moo mag sax génn génnuk àdduna sengoor ndax moom ci boppam tànnoon na fi mu wax ne bu bëggoon na euh, ñu denc ko fa waaye jaam ak pexe yàlla ak dogalam diggante bi doom ji njëkk koo génn àdduna moom mu tànn yóbbu doom ji benneer bu jigi mu bind sàkku ne su fu génnee àdduna nañ ko ci belleer voilà ensuite bi bu fu jee ko jabar ji génn àdduna bëggoon nañ ko ci Senghor te ñoom am nañ ay mbokk Senghor nekkatul rek Senghooru Joal Fadiouth Senghor nekkatul rek Senghooru Siin wala Siin Saalum Senghor nekkatul rek Senghooru Sénégal Senghor nekkatul Senghooru parti socialiste wax naa ko léegi sama njëlbeen du ñun waa PS rek ñun ñoo nekk ay socialiste yu yu naw fonk gëm wóolu doyloo xalaatu Senghor am na ñu nekk yeneen parti yi ci PS ak sax ñeneen ñoo xam ne leen doon jaamaar moom te gi ñu mujj gindeeku ci maqaam ak martaba ak dayoo Senghor ak ak euh, xereñteefu Euh, xalaatam ak gis-gisam donc tey euh, bi nga xamee ne génn na àdduna ñu denc ko fa mu bëggoon bi scolet génne ñi denc ko fa mu bëggoon euh, am na ci ñu dëkk Joal Fadiouth ak ay njabootam ak ay soppeem yu bëgg ñu jëlee ko fi waaye xam nga dafa am loo xam ne ni dafa aaju ci aada ak cosaan ci séeréer yi duñ daan sulli niiw du yóbbu feneen niiw séeréer yi sax daanaka am na ñenn ci yenn xeetu séeréer yoo xam ne ni duñ daan suul dañ daan dugal ci lëm mooy garab gu rëy am pax ñu def la fa am na ba léegi am na boo demee ci garab yoo xam ne da fay ñëw fekk fa ay reste humain ay ay yàq ay bopp ak yooyu noonu donc Senghor moomu am na ñu wax ne suñu ko sullee yóbbu ko fa noonu li muy jural Sénégal ak askanu Ndakaaru wala fañ ko nar a yóbbu ci musiba moo ëpp loolu nag xama xamaguma ci dara loolu moom euh, comme muy daan moom mi daan la la raison est est laine l'émotion est nègre bu ko nit ñi bàyyee bu ko nit fàtte moo tax en tout cas ba fi may wax yow nii Léopold Sédar Senghor na ko yàlla yërëm Euh, Colette yàlla na ko yàlla yërëm Philippe yàlla na ko yàlla yërëm fa ñu nekk ca ba ca ca Bel Air. jóguñu fa ña nga fa kenn yóbbu ko leen fenn. alors ñu wax ci leneen parti socialiste euh, nga bokk waaye yaa ngi ci Benno Bokk Yaakaar ñu investir le conseil départemental bu Kaffrine élection yooyu yegg si nañu daanaka waaye opposition bi tey Yewwi Askan Wi da caa fës lool ni wujj bu gën a am doole ci kanamu Benno Bokk Yaakaar ndax ña ngi leen di yëngal ca ca Kaffrine nu ngeen di waajalee wote dama bëgg d'abord sant yàlla man Abdoulaye daan ak parti socialiste fa ma dëkk Kaffrine ca indépendance ba nag ni kenn mësu ko gagné ku dul socialiste li nga xam ne moo tax naruma nekk maire ma dem damay nekk président département maire laa woon ci benn commune am naa yeneen socialiste yu gañoon ci yeneen communes yi waaye tey dañ ma demandé ci biir ànd bi ñu ne nañ weccee ne man ma wuti département bi dimbali collectivité territoriale yi nekk ci maire yi pour jàppale leen ñoom doomu Kaffrine boo xam ne nii jàpp nañ ni mi ngi ci gouvernement parce que bu njëkk da nga naan nekk maire bëgg a nekk député wala bëgg a nekk ministre ñu ne kii ministère bi mu yore mi ngi limbali maire Sénégal yëpp opportunité la occasion favorable la pour que mu mën a jëriñ Kaffrine man seet ko jàpp ne bon euh, homme politique boo ci nekkee dafay am moment yoo xam da yokk sa expérience indi ligne yu bees sa CV ak sa jaar-jaar ma nangu euh, te député laa boo xam ne département lañ ma fale woon suñu ma waxee kaay jiite département damay jël ndax danaa mën a gën a dugal sama loxo ci bi ba nga xam ne du ma nekk rek kuy kuy jàmbatal département bi mais danaa leen jàmbatal ci fi ma ne war a jàmbatalee waaye dëkk bu ne ci département liñ may jox pour ma liggéeyal leen ko loolu moo tax te loolu itam li may sant yàlla ndax kii nekk candidat nekkoon na sama parti avant mu delluwaat PDS avant mu nekk ak président Macky Sall te suma rakk la amul benn xarma yàlla bu ñu jotee te comme ñoo ànd séq séq benn Bokk Yaakaar di liggéeyal Sénégal loolu jàpp naa ne PS du caage ni dafa perte Kaffrine te it du caage ne sama baas daf ma rëcc sama base moom boo ma amuloon base du ñu ma proposé formule boobu noonu ma sante sant yàlla bu baax mel ne nag léegi euh, élection yii di ñëw Euh, nga laaj ma ci ma ci wax ci jamono bu ñuy waxtaanee vingtième anniversaire du Senghor du gàcce du hors sujet parce que Senghor moo njëkk a li ñuy wax réforme de l' administration territoriale ak collectivité territoriale 1972 ba bi mu fijee ko te boobu temps euh, expérience bu ne nañ ko fi euh, bon mu dem tey ñi nekk fi léegi nag li bees mooy maire yi ak des présidents département yi dañ leen di fale au suffrage universel direct raw gàddu la waaye danañ ànd ak ay conseils yoo xam ne dañ di fale au suffrage universel direct ñoom ñu dajaloo fal ak moom ñiy mottali exécutif fu maire yi ak conseil départemental yi par suffrage universel indirect loolu tam lu baax moo tax mu mu suscité beaucoup d'engouement dëkk boo ci dem du benn opposant rek moo fa nekk mais li nga xam ne moo tax nga wa di ma laaj di tudd turu coalition bu nga wax noonu euh, dafa fekk ne dafa am ay euh, nit ñoo xam ne dañu bëgg a ja boole euh, ñaari xeex dañu bëgg a def xeexu sànni sànni lare am na ñoo xam ne dañu bëgg a ci école élection locale yi euh, dans un pays boo xam ne président bi muy définir politique de la nation ñu bëgg ci régler ale compte yi ñu am ak ku bëgg a nekk président wala ku ko nekk ba pare loolu moo waral coow loolu waaye euh, fi mu si Sénégal bu ñu waxee ci dëgg rek nañ def mën nañ dialoguer discuter ci campagne électorale pour les élections territoriales wax nan laay doxalee lii nan lay defee nangam man sama jikko nii la sama jaar-jaar nii la sama taxawaay nii la sama melokaan nii la sama askan sama waaso waaye programme moom kenn du fi def benn bu wuteeg bu président Macky bu ëllëgee it ku fi nekk président programme la ñuy appliqué pour le moment dëgg la nag ñu ngi jëm ci jamono boo xam ne nii delloose nañ premier ministre ak gouvernement euh, incha allah donc Sénégal bu demee ci élection législative wala élection présidentielle boobaa mën nañu am dialogue bu toll noonu ak débat bu noonu waaye mbir mi du élection wu Macky Sall élection gox yi ak gox goxaañi la ñii ànd ak Macky ñii ànd ak ñeneen am nañu ànd ak Macky Sall sax contre liste def man am ci benn ak Kaffrine département ba am na fu ci biir commune ba ñoo xam ne nii ñeneen ñu socialiste lañ te ñu ngi nekk dem ah, am na ñeneen ñoo xam ne ñu jàkkaarloog donc du mbiru benn liste contre benn liste du mbiru jàmmaarloo euh, résultat yi élection yi élection ouverte la bu bu résultat yi génnee mën naa am sax nga dégg coow yuux jibee foo ko foogul yéen dëkk donc en tout cas man li may def mooy euh, dama bu ma digaalee sama nawle dama sama sama kaddu maa ngi ci benn bokk yaakaar danaa def tout ba nga xam ne nii du am benn fu ñu may jàmbaat bala fu ñu may sikkee. ñi nga xeex ak ñoom ni mu lay boole man liste parallèle ñu si neen moo tax d'ailleurs man bennoo laa nekk xam sama noonu laa mel man lu may def dama lu ma nekk maa nga ca lu ma nekkul nekkuma ca xaw ma tapale xaw ma Euh, wuruj waaw xaw ma ko xaw ma ruubee aussi. ñu ngi lay gërëm Abdoulaye Wilane. waaw maa ngi lay gërëm bu di di wax ne danga maa laaj man rek waaye du man rek maay socialiste bu nekk élection te damay bañ aussi ñu ne damaa ñëw di wax ci turu parti di wax sànq bopp rek dëkk yu bëri te fasanti ko am na yoo xam ne nii PS yi dañoo dema seen bopp. ma ñoomuñ maa ngi leen di ñaanal yàlla ndam bu demee ni Mbuur demee ni kii euh, Makka Yopp wala nga demee ni kii euh, Jaxaaw daal le Fatick ou fu ne fu ne na. am na tam ñoo xam ne dañu ànd ak liste parallèle am na ñoo xam ne dañu dem carrément dans l'opposition mais comme ñun dañu bëgg nekk ay ndono Senghor te loolu la ab Abdou Diouf jàngal loolu la ñuy Ousmane Tanor Dieng bàyyee te loolu ci lañ nekk ak Aminata Mbengue Ndiaye dañ jàpp ne jur gu euh, njaboot gu tasaaroo moo gën jur gu tasaaroo ndax jur gi bu tasaaroo mënoo leen gisaat mënoo leen dajawaat mën nga leen ñàkk waaye njaboot gu tasaaroo yàgg yàgg dañuy dajawaat mën nga leen dajawaat ci dajalaat boobu noonu bàyyiwuñ ci kenn ak ku mu mënti doon ak ci parti bu mu mënti doon. ñoom Khalifa Sall ak ñoom Barthélémy Dias ak ñëpp bu mu mënti tàkkalikoog partoris li ñu itteel mooy ci diir bu gàtt ji dajalewaat nekk benn ngir mën a am une offre programmatique projet sociétal boo xam day nekk programme socialiste. loolu yaakaar nga loolu mën a nekk. ah loolu loolu loolu man su ma itteel la te itteelu waa parti socialiste bi la parti incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ci biir diir bu gàtt a gàtt a gàtt a gàtt euh, ñu am programme socialiste bu ñuy dérouler avec à la à sa tête et à la tête de toutes les institutions décisionnistes. jërëjëf ñu ngi lay gërëm.